mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax le point de la rédaction di jotaay yi nga xamante si dañ koy amal tous les jours di ci waxtaane euh, lépp loo xam ne si ni euh, actualité la rawatina les faits divers may am mbégte di ci ànd ak Moustapha Mbaye euh, di ko bàyyi mu nuyoo ginnaaw bi bu ko pare. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñoon si sunu jotaayu xibaar bi ñiy woowee le point de la rédaction. ay ci Moustapha ñu dem ci assemblée nationale ndax procédure levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko euh, ma ngi koy ña ngi koy wéyal foofu ci assemblée nationale donc tey jii sax war nañu amal ab réunion donc euh, député yi war nañu daje euh, ngir valider commission ad hoc bi nga xam ne si taxawal nañ ko ngir ñu war a saytu li nga xamante ni moom mooy leve immunité parlementaire bu Ousmane Sonko donc bu ñu xëyee sax quotidien yi maanaam yéenekaay yi daal dinañuy joxe turu ki nga xamante ni moom moo war a défendre Ousmane Sonko ci boobile commission nekk euh, moom mooy Aïda Mbodj donc nekkoon fi euh, ancien ministre nekk fi tamit euh, li nga xamante moom mooy maire bu Bambey moom mooy daal di taxaw défendre ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ci boobu les commission nga xamante ni ñoom ñoo war a def benn instruction jëmee ci wàllu nga xamante dañ ko koy tuumaal muy wàllum viol donc jëm ci xale boobu nga xamante ni moom mooy Adji Adji Sarr donc mu mu mu nag nag coow loo xam ne si nii ba léegi pënd bi wuréegul donc dinañ ci gën di xuus waxtaan ci waaye tamit dina am yeneen ponk yoo xam ne si ni ah, dina ci waxtaan muy yëngu-yëngu bi nga xam ne si ni am na ci côté magistrature bi waaye tamit euh, leneen li nga xam ne si ni moom mooy euh, deux deux cent mille doses euh, de vaccin yi nga xam ne si ni indi nañ ko tey jii fële ci fële nga xam ne moom mooy aéroport international bu Blaise jaañ donc dinañ ci ñëw Moussa Fam ñu ñëw ci assemblée nationale ko euh, euh, procédure bi ma ngay gën di ma ngay wéy foofu ci assemblée mm-hmm. nationale ndax tey député yëpp dinañ fa daje ngir valider li nga xam si moom mooy commission ad hoc bi ñu doon euh, formé fan yëpp donc mu mel ne que ni daanaka ñu dem ci levée bi rek moom moo des maanaam plénière séance de plénière bi ngir mën a yëkkati mbalaanu kiiraay bu député boobu di Ousmane Sonko nekk tamit njiital Pastef ñu tudd ko ci wàllum viol waaw ba tey Cheikh Mahfous li ñuy wax euh, tribunal parlementaire bi ñoom ñooy wéyal seen liggéey ndax ñoom ñoo teg euh, benn euh, commission ad boo xamante ne dafa li ko tax a jóg mooy ñu xool ndax danañ yëkkati wala duñ yëkkati mbalaanu kiiraayu kii di Ousmane Sonko niñ ko ni nga ko waxee léegi jàng nañ ko ci yéenekaay yi ñu ne député Aïda Mbodj mooy ki nga xamante ne mooy assurer défense défense Ousmane Sonko. te gannaaw loolu mi ngi am benn démb benn réunion boo xamante ne ñi ngi jàpp ne mi ngi am fële ci IAM nga xam ne Moustapha Guirassy foofu la nekk. ñu fàtte fàttali ne Guirassy tamit dina bokk ci boobu commission ad boobu nga xamante ne dañ koy teg te li ko tax a jóg ma wax wax ko léegi. Euh, kon tey jii dafay dañuy xam ne bu baax a baax mbir mbir mi mi ngi mi ngi mi ngi avancé mi ngi dox ay jéego ñu fàttali ne rek buñ buñ li waral mu am solo mooy. Euh, kii di Aïda Mbodj nga xam la tànn tey jii. moom mooy taxaw expliquer lan moo war a tax ñu bañ a dindi malaanu kiiraayu Ousmane Sonko. Mhm. moom mooy taxaw défendre ko moom mooy taxaw wax na mbir mi fi lii ak lii ak lii laa sukkandiku pour xam ne ne bu ñu dindi malaanu kiiraayam parce que mbir mi lii ak lii ak lii ak lii moo ko waral. Mhm. te su boobaa ay Aïda Mbodj dina dina dina dina jël kàddu Ousmane Sonko normalement. bu bu ñëwee dina dina dina dina jël kàddu. Mhm. rapporteur commission bi dina jël kàddu président assemblée nationale bi dina jël kàddu ak ki nga xamante ne tamit moo fay teewal gouvernement bi tamit dina jël kàddu. am droit parole ñeneen ñëpp euh, xam naa du ko du ko jar actuellement ak mbir mi demee mbas meeg yooyu mm-hmm. yaakaaruma député yu bëri teew fa euh, parce que assemblée nationale bu ñu ko lu yàggul dara virus bi duggoon na fa ba am nu mu fa mel noonu di ñëw dinañ am lu ci gën a leer di immunité parlementaire Ousmane Sonko mm-hmm. euh, mi ngi noonu donc procédure bi enclenché nañ ko donc yàgg na donc li ci des sax bareetul mais dafa Euh, comme procédure la xanaa dina am benn benn délai boo xam ne si nii tey bu ñu jugee ci bu ñu jugee ci lii muy muy euh, muy réunion bi ñu amal tey est-ce ñu dinañu mën a xam ban jour wala ci ci ñaata jour la ñu la ñu war a taxawal euh, séance de plénière bi pour lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko. normalement dinañ ko war a xam bu ñu jógee ci seen seen ndaje tey parce que bu ko validé rek lii des mooy jàpp date bi. Mmh. bu ko validé tey commission boobu noonu bu ñu ko validé tey rek mmh. li des mooy jàpp date bi kon ce qui est sûr mooy xam date bi nga xamante ne moom la ñuy amal plénière boobu noonu ngir def ko comme ni ñu ko defee woon ak mm-hmm. ak Karim Wade comme ni ñu ko defee woon ak comme ni mm-hmm. comme ni ñu ko defee woon tamit ak Khalifa Sall dindi seen mbalaanu kiiraay mm-hmm. dindi seen mbalaanu kiiraay donc euh, xam naa ni euh, fii ak fan yi fan yu néew comme ni nga ko waxee dinañ ci am lu leer parce que mbir mi moom euh, chaque jour rek ak la ci xew ndax procédure judiciaire moom mel noonu il faut mu am loo xam ne si nii maanaam duñ ko defandoo ay ay ay procédure xam ne dañ ko war a respecté ndax yoon moom mooy doxee noonu mais tamit ñi nga xamante ni moom mooy magistrat yi yi foofu tamit dafa mel ni yëngatu na muy mhm. euh, benn benn benn nuñ ko ñu ko mënee tuddee benn yëngu-yëngu boo xam ne si bu am doole li ko waral nag moom moo di Ousmane euh, mooy affaire Ousmane Sonko donc ñu bëri ci ay ay ay ñu nekk foofu di ay magistrat ñoom dañuy wax ne euh, kii di juge d'instruction bi warul mën a def mandat de dépôt kii di Ousmane Sonko ndax amul assez de preuves amul loo xam ne si ni ak bu ñu jàppee ni tamit dossier médical bi amul fenn foo xam ne si ni dañ fa rapport sexuel am na fa mhm. donc dañuy jàpp ne ñoom viol amul foofu donc kii di juge d'instruction bi nga xam si moom moo yore enquête bi donc euh, mënul euh, def dépôt euh, de mandat mandat de dépôt ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko loolu tamit indi na ak jiixi jaaxa ci ci boppu Sénégalais yi ndax bu ñu demee ba ñu ngi ñu war a mhm. jugé ay mhm. magistrats xam yoon xam lan mooy dossier donc bu ñu demee bay bay am ay wute mhm. donc xel day tey waaw yéenekaay bi Walf defe naa quotidien moo ko moo ko moo ko biral moo moo ko xam ne mu ne benn mhm, benn magistrat boo xam ne sous l'anonymat la maanaam joxewul turam moo xam le ne mbir mi ni muy doxee ak ni mu mel nii mhm. kenn mënul jël Ousmane Sonko euh, def ko mandat de dépôt mbaa naa caabi féete ko ginnaaw mhm. ndax amuñu suffisamment de preuve wala d'argument yoo xamante ne moom la ñu mën a textal bi pour wane ne lii moo tax ñu denc Ousmane Sonko mi euh, benn gis-gis boo xamante ne daanaka mën nañ ko généraliser ci côté yu bëri boo booy xool ba ci biir parce que boo ñëwee ci côté politique yi dañoo féewaloo féewaloo nga dem ci camp camp camp camp ñi nga xam ne far euh, président Macky Sall sax dañoo féewaloo parce que ñenn ñu d'accord uñ ci yenn procédés yi nga xam ne moom lañu utiliser jàpp ne am na benn mais bu nekk ci ginnaaw parce bu ñu fàttali ba tey am na benn avocat euh, Ousmane Sonko. Mhm. maître Ciré Clédor Ly ñu ngi jàngatee ci yéen kaay mu ne complot la boo xam dañ mhm. dañ koy def wala ministre moo mhm. dañ koy jiñ président Macky moo seetaan bali am wala bëlale am donc comme loolu lépp demee na moo waral parfois dafa am ay xiini miini bu ci am ci diggante magistrat ci biir magistrature bi ci biir euh, ñi nga xamante ne ay ay ay ay politique lañ. Mhm. xam ne société civile sax la ñu nekk ak ñu bëri fooy faree rek am na benn lecture boo xamante ne am nga ko ci. maintenant bu fekkente ne nag a doy mhm. a àtte bu amee ñoo xam ne dañoo am jiixi jaaxa rek mën na indi loo xamante ne xel dafay daal commencer tey. Mhm. su fekkente ne am na benn décision boo xam ne ëllëg jël na ko parce que bu ñu fàttalikoo Souleymane Téliko lan moo waraloon ñu blâmer ko mooy avion boo xam ne joxewoon na ko ci procès wu Khalifa Sall mu yaakaar ne droit kii di Khalifa Sall respecté wuñu ko te magistrat bu doy noonu jiite UMS su demee ba wax loolu am na fu mu ko teg Eh, yooyu nag yaakaar naa ne genre yu mel noonu pour ñu koy éviter moo ñu def liggéey boo xam ne liggéey bu sérieux la ñu def liggéey boo xam ne respecté ne moom droit ki yoon eh, def nga xam ne moo ko war mm, yoon def li nga xamante ni moom moo ko moom moo ko war euh, mais tamit euh, euh, Moustapha Macky Sall am wax joo xam ne si ni waxoon na ko fi mu ne bu fekkente ni dañu dañu war a tëj benn nit muy war a yëngal réew mi donc je pense que dégg nga wax boobu mm-hmm. mu ne moom il préfère mu bañ ko mu bañ ko tëj que mu tëj ko réew mi du yëngu jàpp nga ni tey ba muy wax wax wax ji Sonko moo taxoon wala tey dañu nekk dafa nekk ci contexte boobu est-ce que dañuy jàpp ni kon euh, mën nañ mën a euh, tëj ki nga xamante ni Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko euh, bu ñu gisee li nga xamante ni moom mooy mooy yëngatu wala enjeu bi nga xamante ni tey. Mhm. bu ñu ko dugalee ci kaso bi mën na mën na yëngal réew mi. man dama dama jàpp ne man sama lecture laay njëkk joxe balaa maa ñëw ci waxu Macky Sall yooyu. Mhm. mooy dama jàpp ne mbir mi ni mu demee nii ak mbir ni ñuy avancé ñi gën a gis mi gën di leer nii. nguur gi euh, bu doon seen objectif tëj la sax pour man fi ñu toll ni actuellement dina dinañ xaw a hésité. bu fekkente ne tey ñi koy accusé dañoo yaakaaroon ne dina dina yombee noonu mais dafa am beneen leneen mbir loo xam ne moo nekk ci ginnaaw mooy mooy tilimal dar am benn bataille de am foo xam ne Ousmane Sonko bi ngeen jàppee woon 54 Ousmane Sonko bi ngeen jàppee woon li ah ñu koy tudd ci mbirum viol tey boo tàppee tur Ousmane Sonko boo yeggalee balaa ngaa yegg ñu indi la Adji Sarr wala ñu indi la beneen tur viol ci wet gi xam nga am na yoo xamante ne même moteur de recherche yi daf koy jàpp tey ji DSK boo tàppee DSK boo matu ci wet gi ñu indi la viol wala ñu indi la Nafissatou Diallo mm. donc par rapport sa e-réputation par rapport compréhension bi ni ñu doon am par rapport ak sa jaar-jaar dafa am ñoo xam daf koy def si nit ki te loolu mën naa ne d'abord ñi nga xam ne ñoo accusé Ousmane Sonko ñoo ko tuumaal réussir nañ point bu njëkk boobu léegi beneen point bi nag mooy fexe ba yóbbu ko ci yoon waa ji dem leen te ñëw ñu naan mi ngi déglu ñu ngi koy Eh, déglu nañ ko tey dinañ ko bàyyi teg benn suspense nit ñi commencé jaaxal nga wane ne kii kat ki ngeen yaakaaroon ne kenn du ko laal ki ngeen yaakaar laal nañ ko ba xaw tuut mu dem waaye bàyyi nañ ko mu ñu def nañ ko sous contrôle judiciaire mm-hmm. donc c'est une façon de de de aux gens que ni ah yéen kat fi ngeen yaakaaroon foofu ngeen teg seen leader yeggu fa mm-hmm. loolu beneen point la moo mi mi gis-gis boo xamante ñi nga xam ne dañuy wax teesu complot mën nañ mm-hmm. sukkandiku ci loolu xam ne pour affaiblir un opposant la image boo xamante ne ñu bëri dañ ko jàpp ne koo xamante ne nit ku pieux mm-hmm. nit koo xamante ne ñu dem sax bañ ko fiy jiñ ay accointance yu moom ak ay ay Boko ay état islamique ak yooyu mm-hmm. donc mii loo xamante ne daal man yaakaar naa ne

politique. bi mu fa nee les les les les hommes religieux ou bien les xalif sont des sont des citoyens ordinaires gis nañ wax ji fu mu jëm mu topp ko. xam nga tey ji boo jiitoo ñëpp di la dégg am na parole yoo xam ne balaa nga koy xool xoolaat ko c'est pas pour rien ñi nga xamante ne dañoo yegg ci benn niveau bi ñu am ay chargé de communication ñu am ay attaché de com yoo xamante ne spécialiste la ñuy doon gis nga même mot même verbe même temps même yëpp yëpp dañ siy dimbali parce que improviser baaxul. même bu fekkente ne da ngay improviser dañ improvisation se prépare. tey ji discours président Macky pour man genre yooyu war na koy mën a éviter éviter ci waxam parce dafay wëyal di dëggal ñi nga xam ne dañoo yaakaar ne suñu justice. Macky moo ko téye abal ko ay bët fu ko neex mu xool fu ko neex mu bañ a xool. loolu nag yaakaar naa ne du indi confiance bi nga xam ne moom la ndaw yi waroon moom la nit ñi waroon a am ci justice bi parce que su ne am na ñoo xam ne soo leen téewee dëkk bi yëngatu da préféré bàyyi noonu dossier bi ñu gis fi tamit Amadou Wuri Diallo nga xamante ne valeur deux milliards et quelques médicaments yoo xamante ne mm-hmm. mu joxe mu signé mu dem xam nga loolu pour man buñ buñ fa jógee ni ñuy gracier euh, prisonnier waroon nañ ci am mbiru leer a ba nga xamante ne yi genre cas yi du mel parce que dafa doon loo xam ne dafa sensible tey ji bu manque de confiance foofu rek nit ñi dootuñu wóolati seen bopp te loo loolu moo indi cas bi ngay gis nii mm. bu ne tey ji dëkk la boo xamante ne yoon dañ ko wóolu à cent mm. Ousmane kenn nit ñi duñ fi nekk sax di wàcc di coow ak yoonam parce que dañuy jàpp ne ku jigéen moo ko av moo moo ko moo ko moo ko moo ko porté bu demee deful dara day dem bàyyi noonu mais ñoom dañuy tiit ne même bu deful dara sax bu demee ñu jàpp ko mm-hmm. ñàkk wóolu si justice moo koy waral te ñoom ñoo amee comportement boobu ñoom ñoo amee démarche boobu noonu mm. ba tax na manque de confiance boobu di wéy di am ñu bëri doon ci wax euh, complot ba mu dàmbalee ba léegi daanaka ñëpp thèse complot la jàpp donc est-ce euh, ba euh, bi ba nga xam te tey li ñu li ñu ŋànk duñu ko bàyyi ndax jàpp nañ ni suñu suñu bàyyee Ousmane Sonko wala suñu reculer dellu ginnaaw loolu défaite la ci ñoom te daanaka dañuy pro dañuy dañuy dañuy proclamer Ousmane Sonko président de 2024. gis nga calcul yooyu buñ ko dugalee rek justice du def liggéey booy dugal naan su ma ko jàppee dina dina dina su ma ko jàppee lii dina am ni su ma ko bàyyee lii dina def ni justice def liggéeyam man dama ne na justice def liggéeyam mhm. Ousmane Sonko deful nañ ko bàyyi mu ñibbi këram Ousmane Sonko moo def nañ ko def li nga xam ne mooy daan yi nga yu war a teg ci kawam loolu mooy mbir mi mhm. mais teesu complot bi nga wax noonu xam nga lu tax ma ma jàpp ne ñi enquête bi lu muy gën dem fi ñu toll dara dootul umpati mhm. même section de recherche lu fa xew sax sa ëllëg sa boo xëyee nga gis ko ci journaux yi mhm. enquête bi lu ñuy gën di dem rek mbir mi di gën di leer lu gën di dem rek mbir mi di gën di leer kon loolu kay na ànd ak daal nga tey mhm. xam ne tôt ou yow yaa am dëgg bi te dëgg gi dina fekk ji maintenant soo demee na ba gis ne dëgg ji ñu ngi koy bëgg a soppar ñi daf ko ay nar su boobaa nga jóg taxaw jàkkaarloo moo jël xale bi yóbbu mu dem am ba ñu tudd ci benn ci benn médecin ñooñu dégg ñu leen avocat Ousmane Sonko ñaawal nañ leen leen déglu ci biir mbir mi defee dinañ xam avocat bi kan la médecin bi kan la bu ñu gisee ne ñu ñu lëkkaloo la ak nguur gi yooyu yëpp bu ñu ci duggee su boobaa dinañ xam complot bi fan la féete ak ñoom ñoo defar complot bi mm. te enquête bi tax mu am solo mooy dañuy xam buñ ko remonté dinañ xam ban autorité moo nekk ci ginnaaw complot boobu su fekkente ne complot bi am na su fekkente ne complot bi amul situation bi tamit naka la demee ak jigéen bi yan daan la ñuy teg ci kawam eh, loolu yaakaar naa képp koo xamante ne da ngay citoyen nga gëm ne dëgg moo war a jaillir ci côté bu nekk mm. dafa war a moo war a doon baatam loolu moo war a doon xalaatam mais au delà de ça tamit euh, manque de confiance bi am ci suñu diggante citoyen bi ak justice bi moo waral coow lii lépp mm. parce ñu bëri dañoo jàpp ne Ousmane Sonko dañ ko diri yóbbu ko abattoir bëgg ko faa tër faagaagal ko. mu euh, ay ñooñam ne duñ ko duñu ko nangu ba tax na euh, génn nañ ci mbedd mi te tamit euh, ñu ngi gis ay arrestation yu bëree bëree bëri ci côté Pastef donc mu nekk nag loo xam ne si ni tey mi ngi indi ak jeexi jaaxa ci ci li nga xamante ni moom moo di moo di réew mi Moustapha ah, mais tamit dafa am loo xam ne si ni dañ koy ñaawlu ci ci mbir mi muy muy muy procès verbaux yi nga xam si ni. Mm-hmm. def nañ ko yóbbu nañ ko ci place publique bi te doon na ko foofu du place am ndax yaakaar naa ni loolu secret la a fa fa nga xamante ni foofu la waroon a nekk mais tamit ñi ko génne sama xam problème bi mooy bu subaa tamit ñu defaat ko fi jëlaat bi yenn procès verbaux ñu génn ko parce que ñi koy génne dara du leen ci fekk te hmm. amuñu droit génne yooyu procès verbaux ndax enquête bi pareegul donc mu nekk loo xam ne si nii tamit mbir la ci mbir la ci mbir mi donc bu ñu jógee foofu Moustapha dañuy daal di dem Euh, fële ci euh, aéroport international Blaise Diagne foofu tey jii président de la république euh, war na fa dem daal di teeru wala maanaam réceptionné li nga xamante ni moom mooy deux cent mille doses de vaccin Covid 19. donc foofu ci aéroport aéroport Blaise Diagne donc mu nekk loo xam ne si nii tey war nañ ko war nañ ko amal donc mu nekk loo xam ne si nii rek dinañ fa organiser benn cérémonie donc pour réceptionné ko est jàpp nga ni tamit. Eh, eh, waroon waruñu ko woon a fii ci benn benn hôpital fii ci à Dakar eh, lu mooy ñuy dem ba foofu noonu di organiser ay cérémonie foofu ca foofu ci aéroport juste pour réceptionner deux cent mille doses Euh, des vaccins contre euh, la Covid-19. waaw deux cent mille doses yoo xamante ne nee Sénégal dépensé na su toll ak deux deux deux milliards su ma juumulee. milliards ah. loolu bari na de. Euh, <laughs> waaw mais vax vaccin yi tamit yombul. parce que bu ñu fàtte ne initiative COVAX moo tax sax ñu am si. parce que OMS dafa def initiative dafa def initiative COVAX pour dimbali réew yi nga xam ne amuñu doole pour mu mën si dugal loxoom ñu jàppandi leen ba ñu yàgg si. mu wax mu waxtaan ak. ñi am parloo quoi. Hmm? ñi am parlo. waaw ñi am parlo dimbali leen tamit pour pour wàccee ndax seen koom amul doole trop bu ñu leen bàyyee noonu rek abandonné leen amaana du ñu am sax koppar gu ñu jëndee yooyu nga xamante ne mooy dose euh, euh, vaccin yooyu parce que 200000 doses yooyu 100000 personnes lay vacciner. parce que hmm. ku nekk ñaari ñaari dose ngay jël. Ah. donc 200000 100000 personnes lay. lay lay vacciner ku nekk ñaari dañ lay vacciner après ñu rappel la. Ah, waaw donc kon kon kon cent mille personnes kese la mën a vacciner mooy AstraZeneca boobu. Mm, mm, mm. je pense que boobu boobu am parce que bu weesoo loolu Johnson Johnson mooy vaccin bi nga xamante ne benn yoon kese la. boobu moo fi xeetu vaccin wax mais yeneen yëpp dañ lay vaccin après après après ñu ñu defal la rappel de ce fait boo amee benn nombre dose da nga koy diviser par deux. ci nombre nombre de nit yi nga mën a vacciner. mais mais dama yaakaar ne mu recevoir ko ci forme bi la mënoon na xool fu mu ko recevoir waaye tamit ñu ñi di ko wéy di ko ñaax rek pour pour man yaakaaroon naa ni balaa vaccin yi ñëw dina am benn liggéeyu communication bu am solo buñ ci def pour nit ñi gën ko gën ko approprié wu parce que dama gis temps yi passé ñu def benn ñu ne am na benn sondage bu wane ne plus de soixante et quelques personnes pare nañ pour vacciner wu man dama damay man loolu moo ma jaaxal dama ne hmm. fan lañ ko def parce que ñun échantillonnage yi ñuy am yu tuuti rek da nga gis ne ku gis ñu bëri da gis ku taxaw sax ne man kenn du ma waaye suñu kër kenn du ñàkk sam kenn du ñàkk sam yaay boo duggee suñu kër kenn boobule sondage mais lépp lu ci mënta am rek pour man am na benn liggéeyu communication boo xamante ne waroon nañ koo def avant mais gisuma ko gisuma liggéey boobu te vaccin yi si nañ ba pare mais nag nee comme ñi nga xamante ne ñu bëri ñiy wax ne kenn du ma ñàkk kenn ñi wër sa classe gi wër naan bu ñëwee ma ñàkk wala bu ñëwee du ma ah, ñàkk kenn du leen ñàkk <laughs> waaw xaaral ba gis ku la ñàkk noonu la ko docteur doon waxee di wër naan du ma ñàkku kenn da ngay xaar ba gis ku la ñàkk waaw kon kon kon noonu la ko waxee rek mais yaakaar naa ne comme ñëw na am na tamit ci wet gi beneen front boo xam te ñoom dañoo na lu ci a defar terrain bu baax baax parce que defar bi des na waroon nañu liggéey bi ci waroon yëpp mm-hmm. waroon nañ déployer moyens yi mu laaj yëpp ba nga xam ne liggéeyu communication bu am solo bu am fulla bu am dayoo dinañ ko ci def ba nga xamante ne bu ñëwee amaana nag ay réticence moom mënul ñàkk am dina am ñoom dañuy bañ a ñàkku dina am ñoom duñu ñàkku 100 pour cent mënul am mais nga fexe ba convaincre majorité bi mhm. ñu ñàkku te loolu stratégie la ay mhm. façon la waaye doo jóg rek jot say ñàkku dugg si koñ parce que maa ngi dégg ñoo xamante ma école yoo xamante ne euh, fièvre bi rek pour ñu ñàkk leen ko ñu bëri dañuy commencé daw du nangu donc am na jafe-jafe yoo xamante fi ñu toon nii glacière boo ko yoree dugg si koñ sax xale ya mag ñi ñëpp daw abal la parce que dañ naan mi ngi ñuy ñàkk coronavirus te waaw <laughs> seen ah. ngi noonu mais bi xam naa ne bon dispositif a a bokkul ak yeneen xeetu vaccin yi ñu fi daan gis. man man je pense que waroon nañu mën dépasser fii ci wàllu euh, communication parce que Macky bi ma joxe instruction euh, kii di Abdoulaye Diouf Sarr pour mu commencer mm-hmm. de sensibilisation boobu yàgg na. je pense mm-hmm. que mais ba léegi daanaka euh, dafa dafa dafa tumranke communication jëm ci wàllu côté vaccin pour préparer nit ñi sensibiliser leen dafa dafa tumranke moo xam ci moo xam ci support digital yi la moo xam moo xam muy yi moo xam la. en tout cas lu si ma ci mm-hmm. doon ñoom ministre bi yëpp kenn gisatu leen.

je pense que war nañu mën a génne ci campagne bi euh, maanaam mm-hmm. sensibiliser sensibiliser nit ñi parce que am ñoom si tey dañ leen gëm ñooñu ne ku ci mel ne mm-hmm. professeur Seydi ku ci mel ne Bousso dañ leen gëm am ñoom ñoom la ñuy déglu waaw Abdoulaye Bousso lu ñu ci wax rek ah, daanaka dañ koy dañ koy gëm donc suñu génnoon tey ne vaccin yi moom mooy solution pour ñu éradiquer euh, lii di Covid 19 fii ci Sénégal je pense que ñu bëri dinañ ko dinañ ci am benn benn bi positif bi ah, donc dem vacciné jàpp naa ni euh, suñu autorité yi suñu médecins yi suñu docteurs yi je pense que du ñu jël loo xam si day lor askan bi tey ñu ñu koy jox parce que ñoom am nañ euh, ci seen ak njaboot ñoo ci nekk seen ay rakk seen ay mag seen ay jarbaat seen papa seen ay nijaay ñoo nekk ci askan bi te je ñu nangu ñu jël loo xam si day lor askan ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy am ay loo la seen wàllu yër-gu-yaram loolu je ne pense pas Moustapha mm-hmm. waaw xam loolu comme ni nga ko waxee rek mm, yaakaaruma tamit ñuy jël xel mu rafet xel mu sell sax nañ ci nañ ci am xel xel mu rafet rafet rek. même si pour ban raison pour lan ban raison. waaw même si bien vrai que gis nañ ne actuellement nee nañ moo fi sës. nee nañ moo fi sës autorité gis nañ loolu ñu ñu wéy di leen jox confiance rek. Euh, parce que yaakaar naa ne euh, xanaa kay nag euh, duñ fi indi lu bon di ko di ko di ko duut askan wi mi mi yàq ëllëg avenir que seen askan parce que tamit même bu ñoom bu ñu pikiirul di nga pikiir sa mbokk wala nga pikiir sa maam wala sa ku pikiir koo xam ne ku la jege la mm. te kenn yéenewul lu bon sa mbokk yaakaar naa ne rek nañ ci am njort bu rafet rek bien vrai que am na yu bëri ñu mën a wax ci vaccin yi am na yu mm. bëri critique am na yu bëri gis nañ ko ci mm. internet bi rek lu nekkaa ngi ci mais nañu am xel bu rafet rek te nag métti na trop yàgg na tamit. Euh, situation mm. bi ñuy dund daanaka lépp lompoñ. économie bi dara doxatul. marché yi gis ngeen ne métti na jaaykat yaa ngi yuuxu wàllu culture gis nga waykat yi. làmb ji donc ñoom tamit ñi ngi jooy rek ba léegi làmb ji mënul fexe ba tijji donc musiciens yi gis nga leen seen boîte yi tijji woon nañ ko fi benn moment mais tëjaat nañ ko ñi ngi bëgg dee ñoom tamit te ñoom loolu lañu mm. am pour mën a dem euh, maanaam am lu ñu suturloo yóbbu ko seen njaboot donc je pense rek war na tax Euh, tey ñu ñu di góorgóorlu tey bu ñu amee solution nga xam ni si loolu rek moo fi sës muy vaccin yi ñu jël ko vacciné wu ñu jàll ci dund bi nga xamante ni moom lañ doon dund ku nekk vacances yi euh, occupation je pense que loolu moom mooy solution Moustapha ñu ngi may euh, wax que ni li ñu cëraloon ci wax daanaka jeex na li baas bi may def si looy tàggatoo ak message ba. waaye li may tàggatoo tàggatoowee rek mooy di di ñaax ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko ak waa Pastef fii ñu bëri ci ñoom ñu ànd ak daal et puis ñu xoolaat tamit ñi nga xamante ne ñi ngi dugg ci biir réseaux sociaux yi def yenn commentaires yi. Mm-hmm. parce que actuellement euh, seen leader fi mu toll soxlawul lool arrestation mm-hmm. ñi mu soxla mooy ñu taxaw jàppale ko ci xeex bi euh, taxawal ko mais su fekkente ne dañuy def ay comportement naka su noonu ban tëj leen. Mm-hmm. amaana du amati koo xam ne ñoo taxaw xeexal ko. am na ñoo xam ne nag nee na dañu leen di infiltrer dugg ci ba fejji leen sànni leen fële ñi bokkul si ñoom parce que loolu tamit seen responsabilité la nit ki bu ñu la raxee da ngay fexe nga génne leen sànni leen mhm. sinon ki la lu mu def dañuy jàpp ne yow yaa ko def mhm. donc nañ gën a am dal nañ gën a vigilant si si réseaux sociaux yi surtout mhm. vigilant seen i déclaration vigilant seen ay wax seen kàddu ak fépp fu ñu koy mën a rek ñu nekk ay responsable pour ñu bañ a yokk ci xar mi karaw Alès di bitim réew di ñu seetaan suñu ay programme safoo ko Sunugal 24 leen wax ngeen daal di euh, abonné ci suñu chaîne YouTube euh, Sunugal 24 donc ngeen activer cloche notification bi ngeen di am vidéo yi en temps réel donc di leen jox di daje suba incha allah ak beneen plateau.